أزرق أذان قد فجاء بجاه عبد لمن لله قد نجا له اليوم رمزان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 xam ne bisu mag biñ baaxoo amal moo dëgmal si moo jublu si ñu di ko waajal muy bis bi nga xam ne mbooloo mi ñu woowee mbooloo mu waaye bu naafeex mi nga xam ne moo lëkk moo lëkkale mbooleem kuréeli xasida yi nekk ci Touba di yëngu ci kuréel ak li war Touba ñoo ko baaxoo amal at mu ne ñoo koy amalaat atum ren mii tañ te atum ren mi nekk at mi nga xam ne mooy juróom-ñetteelu yoon ñu di ko amal fii fi tuubaa Daarul Xuddoos xam ngeen ne xasida yi ak yitte ji nga xamante ni Serigne Touba am na ko ci ak liggéey bu rëy bi mu ci liggéey liggéeyal ci yonent bi salawaatullahi alayhi wa sallam liggéey ci boromam tabaaraka wa taala tax mbooloo mi ñuy woowee mooy bu naafeex nag xam nag yell na jaaru na ci jullit bu nekk rawatina képp koo xam ni da ngaa nekk ci ron Cheikhul Khadim nga doon koo xam ne da ngaa war sa pastéef war a wanwaat sa pas bu dëgër ci xasida yi rawatina nag nga wutal ko bis boo xam ne nag day nekk bis boo xam ni sa digg ak moom delloo njukkal sëriñ bi lay doon ba tax ñu daje ci pàkk bu am solo bi nekk benn pàkk ci pàkk yi nga xam ne sëriñ bi daan ne fi nekk daan wéetal borom bi tabaaraka wa taala di fi liggéeyal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam muy fii fii Daaru ba tax na bis boobu nag ñu jàpp ko ñaar fan ak benn ci weeru janvier 2016 incha allahu rabbi tax na ñu fas yéene yëkkati kàddu yi jox ko sëriñ Abdou Khadre Diop mi nga xam ne moo topp ci sëñ Cheikh Dieng mi jiite liggéey bi mu yëkkati kàddoom jëmale ko ci soññ mbooloo mi rawatina ci organisation bi jëm ci bis ak daar yi nga xam ne ñoo séq lii di su noppee daan jël kàddu gi jébal ko sëriñ Cheikh Dieng mi nga xamante ni mooy njiital mbooloo mi mu jëmale kàddoom ci woo ñi nga xamante ne ñun ak ñoom ñoo bokk di amal bis bi muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti dëkk bi mu yeneen région yi waaye dana jëmale kàddoom it ci ci maanaam bis ba taxawaay ba ca kuréel yi war a am ak wàllum durus ma taxawaay yañ ci war a am yëpp sëriñ Cheikh Dieng dana ko leeral ci jotaay bi incha allah su noppee nag ñu jox njiital mbooloo mi ki nga xam ne mooy jëwriñu mbooloo mi saa saa su ne muy dagg ay yitteem di ba di dagg ak jotam ngir yittewoo wax ne yitte yittewoo nag liggéeyam sëriñ bi te mooy xasida yi muy sëriñ Moustapha moom sëñ Mahmadan te képp ko xam xam ko ci xësda xam ko ci liggéey xësda moom tam dana jël kàddoom soññi mbooloo mi bàyyiloo xel mbooloo mi jëmmi liggéey bi ak kilifa yi nga xam lépp loo xam ñu ngi koy def di defal seen xarim rek ñoom lañ koy defal moom tam dana wax ci seen kàddu moom moom sëriñ moom moom sëriñ Moustapha moom kon ngir njëkkanteeg waxtu rek dañuy jox sëriñ Abdou Khadir Diop mi nga xam ne moo topp Cheikh Dieng mu leeral li nga xam war na koo leeral ci soññ mbooloo mi ci organisation bis boobu kon sëriñ Abdou Khadir bismillah tullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yu tedd yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñun wala ñu ngi déglu ak fu naa nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di am mbégte lool ci teewe jataay bii nga xam ne yàgg nañ koo teewe fii di leen fàttali bis bi nu jublu te yàgg leen ko fàttali itam muy bisub xasida bi ni ko sëriñ Baara junja léegi mu mel ne kon sunu soññee day jëm rek ci organisation bi nga xam ne mbolo mi ñepp war nañ ko bayyi xel ginnaaw xam nañ liggéey bi noosu na ba lenn lu nekk am na loxo yuñ ko fétalé mu melni ay commission ngi ci biir liggéey bi commission bu nekk nag lañ ko dénkoon mu ca doon dox ba léegi na xam ne la taxoon mu cay dox nag agsi na kon nag war na gën a yokk ak farlo mu baax muy commission yi nañ gën a def ay daje lépp lu war ci seenu liggéey luy tax buñ àggee ca bis ba mu gën a jàppandil bis ba nañ ca daal di farlu sëriñ Cheikh Dieng ci turu mbooloo mépp mi leen ci soññ bu baax muy mbooleem commission yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy wàllu commission ci euh, wàllu njàng mi mel ni Baye Saliou Lo nga xam ne mooy taxaw liggéey bi ñëpp ñu gën a bàyyi xel soññ kuréel yi ak di leen fàttali bis ba nañ bëgg njàng ma tege ci aw yoon ndax loolu ci am solo la ndax xasida yi njàngiin wi ci am solo lool kon moom ñu koy soññ waaye mbooleem commission yëpp muy wàllu culturel bi di wàllu social bi di mbooleem commission yëpp nañ gën a farlu ci yokk seen taxawaay ba balaa bis ba ak si fekk jekk ndax bis bi moom la ñu wax ne agsi na ba noppi li ci dolli ko mooy alquran ji nga xam ne moom la ñu waroon a jiital sax ndax moo jiitu ci lépp lu ñuy defal Serigne Touba kon mbooleem daaray alquranul karim yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak lu génn dëkk ak fu naa nekk nañ xam ne bis bii ñuy def di ko defal xasida yi xasida yi moom ku nekk xam na ne ñoo balle ci biir alquranul karim ci woon Serigne bi génnee nga xam ne lépp la ci xasida yi rek boo demee da nga ko fekk ci alquranul karim ci ay maxnaa yoo xam ne Serigne bi ci la ko génnee kon nak waxtu wu ñuy jàppal bis xasida yi gor lu baax ba alquran di jitu ca waye itam doon ca lo xamne ku dik da nga ca def lepp lo man kon mboolem daara alquran yi nga xamne itam ño fete walu googu ñu ngi leen di xamne ne bis bi seen bisa am nañ ci cër bu reuy bo xamne ñom lañ ko féetale li tàmbalee fi ñuy waxe ba ñi ag ca bis ba lepp lu ci waye mën jang ci alquran ak daara ñu ko mën jangé ñi ngi koy sakku ci mom te lepp ñu def ko ngir jëm serigne bi te xamne itam serigne bi rek ka tax ñi wote bis bi liggéeyal xasida yi rek tax ñu woote bis bi kon ñu ngi ci mboolem daara alxuraan karim yëpp lépp lu ci waay mën a jàng itam su ko jàngee ba noppi bu mënee fexe ba mu accès ci commission culturelle bi nga xam ne Serigne Khadim Diop moo ne ci bopp bi tey di ci def liggéey bu am solo dem ci daara yi nga xam ne yëpp jàppane na mu dem ca xëy na fu mu accès wutit dajal moo yombut waaye yéene mooy dem ci daara yëpp kon kum ci demutit bu mënee fexe ba lam jàng Serigne Khadim jot ci dana accès ci turu mbooloo mi bu ko defee loolu lépp dana tax rek ñu gën a fonk liggéey bi gën a xam itam taxawaay bi nga xam ne ñi ngi ko ci am ba bu déwee ne ñu gën koo mën a waaj loolu rek waral ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu ci jàng na fexe bañ jot ci lim ba kon loolu rek li mu nga xam ne yàlla dogal na mu jiite mbooloom daara alxuraan yi nekk Touba ak yeneen kuréel yi mu ko seqal nga xam ne ñoo ne ci Touba di jàng alxuraan lu ko génn lépp ñoom itam muy rabitul madarisil quraaniya ñu ngi leen ciy soññ bu baax di leen ko fàttali kon lii rek lañ bëggoon a fàttali ci ay kaddu di ñaan ñu àgg ci bis ak jàmm te lii ñu ci mébét yéene ko ci lépp yàlla nañ ci dëppoo ngërëmu sëriñ bi ginnaaw bu ñu amee tawféex yi ko ni ñu ko yéenee di ñaan ñëpp ñoo ci jàmm ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ci noonu te bu ñu ko defee nag làq ci ngërëmu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi wa mbokk jullit yi ñu seetaan ñu ngi di nuyu di leen ziara di balaax ñëpp di balaax ñëpp di ñaanal sëriñ Tuubaa sëriñ Sidi Muxtaar suñu borom yàggal ko lool te may ko wér di sant bu baax jotaay bii ñu am waaye di jégalu bu baax ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanam suñu kilifa sëriñ Moussa Mbacke mu sëriñ Mahmoudan jotaay bii nag ni ko sëñ Baara waxee léegi ku ko gis xam ne jotaay bu alxuraan jóg na jotaay bu xasida jóg na waaye muy jotaay boo xam ne kuréel yi ne ci biir Touba ñoo àndandoo ñoom ñëpp lëkkaloo fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi lii nag ren muy juróom-ñetteel bi yoon ñu di ko amal waaye jàpp nañ ne yoon wu nekk daana fi jaar waaye yoon wi ñuy séntu moom yoon la woo xam ne ñu ngi ñaan yàlla nañ ci àgg ak jàmm ngir lépp lu aju ci waajtaay ñun ñi ko séq daje nañ ci ngir waajale ko suñu bis bu tedd boobu waaye ñu ci ciy soññi ñi nga xam ne ñoo ne ci biti dëkk bi su loolu na su ma ko waxee raison yi ñoo ma tax di wax ak mboolem dëkk yi nga xam ne wër na biir Touba ñi def bis xasida ci raison yi ak ñi nga xam ne sax defuñu ay bis xasida waaye mbooloo xasida lañu moo xam dañuy durus wala ñu yëkkati bàyyiwuñu kenn di ci soññit suñ mbooleem jàngkat yi nga xam ne jànkate benn benn lañu nañu xam ne ci biir liggéey bi la ñu bokk duruskate ci biir liggéey bi la ñu bokk bàyyiwuñu kenn bis bi nag yaatu na yaatuwaay boo xam ne kenn ku nekk mën nga koo dunal fa nga nekk waaye nag boo gisee ñu dajale mboolem ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu fii ci dëkk biir tuubaa dari kenn ku ne yaa ngi woon sab roq di daje di fa def li nga xam ne moo la war ci xasida yi waaye bëgg ñëpp jariñu moo tax ñu am bis boo xam ne ba jotee dañuy bëgg kull ku yëngu ci xasida dina ci ñu àndoo ñun mbaar mi ngir dundal xasida yi kon soññe boobu ñu ngi ci soññ ñëpp waaye noonu ñu ko waxee nag ci wàllu euh, programme bi fasan yéene bu ñu xëyee huit ci bisu alxames bi bu ñu xëyee ci la liggéey bi tàmbali danañ ko yendoo noonu ba jant soo incha allah ñu fanaanewaat ko noonu ba bët set ci huit heures ñu door a yeewi mbooloo mi loolu lépp nag liñ ciy def mooy yëkkati kon bépp kuréel boo xam ne teew na ci jotaay ba fas nañ yéene doonte ñaar fukki minute la da nga ko yëkkati euh, ci bis ba diiru 24 heures yi. noonu lañ koy wéyale ba ca ngoon ga it bu soobee yàlla nañ ko daan defee Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir daana fa teew ci jotaay ba fa ah te ah, yaakaar nañ dina fa teewaat ren ji incha allah it bu ñëwee dana fa yëkkati kaddu yoo xam ne dana jóge ci nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar kon daal loolu mooy li xam ne waajal nañ ko ci liggéey ba da ci soññ nag ñëpp rawatina suñu mbokki soxna yi nga xam ne daanañ jàpp ci liggéey bi bokk ci biir organisation bi ñu ngi leen koy fàttali ñoom it ñoom ñëpp nañ ko waaj ndax bis moo toll noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 jëwriñu barab bii ñu koy ñuy wootee lii di si Ahmadul Muxtaar mi nga xamee ni moo fi nekkal Cheikh Moustapha ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp ak bokk tari di leen nuyu it ci turu sëriñ xak sëriñ Maam Moor moom Cheikh Mamadou Fadel mi nga xamee ne moom la sëñ bi dénk lépp la aju ci alxuraan ak xasaayid ci biir dëkk bi di leen nuyu it ci turu sëriñ Xamsatu ibnu sëriñ Sohaybu daanaka kàddu yi sax motu ko woon ndax sëñ Abdul Xaadir Jóob ak sëñ Seex Jang li ñu wax leen sëkk xanaa soññee dul doy ak woote ci bis bi nga xamee ni moom lañ jëm di bisub sëriñ bi ndax sëriñ bi day woote yi bari na waaye kenn wooteelu ko lu ëpp alxuraan ak xasaayit ndax xasaayit yi ni ma ko baax waxe rek sëriñ bi li mu am bari na lool waaye la ca ëpp ñu ko jaaree ci xasaayit yi ci liggéeyal ci boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla suñu borom defal ko li mu ko ci defal te jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bis boobu bu ñu koy woote ñi nga xamee ni ñoo ko moom ñëpp ko moom waaye ñi ci gën a yey mooy kilifa yi nga xamee ne ñu kilifa yoon yi ñu ngi ci woo ñëpp te di ci sàkk seeni teewaay ak seeni taxawaay te it di ci woo bokki taalibe bi yëpp fu ñu fi nekk moo xam ci biir dëkk bi la moo xam ci biti dëkk bi la ndax fàttali ko mbirum sëriñ bi ak dundal ko mbirum sëriñ bi sax saa su nekk mi ngi dund du su ko fàtte mukk waaye nag war na ci ñun li nga xam ne dañ ko yaakaar muy suñu bunt di suñu lépp àdduna ak alaaxira ñuy fàttali mbiram saa su nekk di ko xamle di ko yeesal ba ñu ko xamatoon gën ko xam xam ko ñu ko xamoon gën ko xam kon loolu mooy li nga xamee ni moo waral bis bi bis bi it dëgg la dañ ko defee fii rek ci Daaru Xuddus waaye bis la boo xam ne Tuubaa gépp ñoo ko jagoo ñoo ko moom benn gox moomu ko bàyyi ba ca des bis nag daa mën la ñàkk fees koy defe waaye ni ñëpp xam ne bisub dëkk bépp la ñu ngi ciy soññi ñëpp di ñaan suñu borom ci ak jàmm te lépp luñ ci def mu dëppook ngërëmul eh, sëriñ bi tey am na ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi moom fu ne la mane waaye nag fu mu gën a mane mooy lépp loo xam ne nii eh, da daray daray da daray leneen kooju ko ndax man mu baax daan wax ne sëriñ bi moom du fecc lib saako du fecc lib saako du ko bokkoo mbiram bu koy def ci dara da day la ndab la mu koy def da ko yële ba mu set wicc mu duy ci mbiram te bu koy béy it du ca bàyyi loo xam ne puso dina ca xajaat day dell kon nag bis bi yal na yàlla dimbale ba ñu def ko te jëmi sëñ bi rekk tax bu ne jëmmi sëñ bi nag mooy ngir yàlla ndax yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi moom dañu eh, maanaam lenn du ñaari yëf du kon yal na ci yàlla dimbale ñu ngi sant ñëpp te di ci séentu ñëpp te it di ca eh, di yaakaar ne ñëpp dañu ko si ndax woote sëriñ bi la. Cheikh Modou Bassir ibn Cheikh Abdoul Khadir ñu ngi koy beral woote boppam ci teewaayam ak taxawaayam mboolem ràññ na ko lool kon ñu ngi ko ci waat bu baax a baax a baax a baax ak mboolem kilifa yëpp ak mboolem jullit yëpp ak taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdou Khadir Diop jërëjëf sëriñ Moustapha moom sëriñ Mahmoudane jërëjëf sëriñ Cheikh Dial mi nga xam ne mooy njiitu liggéey bi kon mbokk yi ñoo ko déggandoo liggéey bi noonu rek la demee ñu leen di fàttali bis bi nag mu war a doon ñaar fan ak benn ci weeru janvier mu war a dëppook alxames incha allah suñ ci àggee waaye laataa ñuy àgg ci bis ba nag war nañoo amal siyaaru nag boo xam ni mbooloo ñuy di mawaay bu naafiya bi nga xam ne moo lëkk mbooleem kuréelu xëse yi nekk Tuubaa yi li ko war ñoo koy amal te at mu ne baax ko amal ci ki fi nekk Serigne Touba ren tamit noonu lañ ko ko amal su del see incha allah rabbi ñu ngi soññ mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci mbooloo mi suñu àggee ci aljuma yi kenn ku nekk jóge sa daara waaj ba jekk teel a xëy si su ko defee ñu ñu àndandoo sëriñ bi nekk ñoom pas-pas fekk ko foofa ngir ngir si siyaare ko ci bisu mag boobu yi su ko defee ñu waajalaat yeneen jotaay kon daal loolu yi moo nekkoon liggéey bi ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka taala maago nañu ak jàmm ba liñ ci bëgg ci ci feex liñ ci bëgg ci nga ngërëmal sëriñ bi yàlla ñu yàlla defal ñoom ci nga sëriñ Tuubaa ñu teew koy at yu bare bare bari te fépp foo xam ne bis ba àgg na fa rek suñ kattan ak suñ man-man ak suñ pas-pas yàlla na fa borom tabaaraka taala àgg na loolu yomb na yàlla yàlla nañ ko defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.